moom Cheikh Yérim Seck tamit ñenn ñi ne Ousmane Sonko mënul bokk ci li nga xamante ne mooy élection présidentielle am également ñoo xamante ne ba tey ji ñu ngi naan décision bi définitive gu moom Cheikh Yérim Seck ginnaaw nag bi nga xamante ni moom ab journaliste tey tamit seetlu nañu à chaque fois bu waxee dara dañuy seetlu ne loolu dafay am mu xam ne ni décision bi nga xamante ne teg nañ ko ci ndodd Ousmane Sonko maanaam c'est définitive moom Ousmane Sonko du mën a bokk ci élection yi. waaw wax mhm. sa Yérim. Mhm. du ah lu tax. très bien Cheikh Yérim dafa am bis mu xëy ñëw nañu mm-hmm. moom génn na ci espace public bi ak politique bi. Mm-hmm. day dem toog. Mm-hmm. comprendre booba man ci ba may wax man boobu maa ngi wax dama ne leen maa ngi leen di génneel ci yàlla weeru koor wi Cheikh Yérim da ngeen gisaat ma ne leen xam nga daf leen di dévier di leen bëgg na xam nga lu mu leen di naxee. mooy doomam wax nañu ne dafa am problème viol ci kenn ku ci ci benn xale. yu léegi association femme féministe nañ ko ci yoon. Sélé mii nii moom war na faa tëdd dix mu tëdd dafa un an ay quelque ñu bàyyi ko commentaire maanaam décision si si wala bañ ko commentaire te bu dese bu dese ci débat public bi danañ ko commentaire mu ne léegi si débat public pour ñu bañ ko commentaire naa ci gën tooge ne loolu rek moo tax mu dem léegi dane moom moom bàyyi na espace public mm. ak léegi anam ñëwaat na wala ñëwaat kon dèjà wax na foofu lu dëgg mm. beneen bi ci dolli ko moom moom Cheikh Yérim toog na fii moom xalaatul am na sax lu jiitu daf ni moom day yéen espace public nee na xam nga luy doon liggéeyam mm-hmm. di bind ay livres ñu koy fay du waxutoon loolu. Ah. loolu la wax après ah. la waxoon. Mhm. léegi ginnaaw bi mu génnee livre boobu bu Macky Sall génne Sénégal au cœur. Mhm. bi nga xam ne moom lañ génne muy livre bi doon wax ci ay Amadou Ba naan gis nañ benn leader ci texte gi def nangam ak wax yooyoom. dogu nit ñi def laa fay ngay bind dana man amul koo mën a fay ci loolu. Hmm. xalaatuma ko te du ma ko def waxul hmm. léegi nee na moom di di fay. dañ koy fay muy bind loolu loolu la def liggéey fii nee na kenn du ko fay muy bind léegi ñaari wax yooyu noo koy comparé loolu wax loolu wax du dëgg la. mais mais nangu ko tamit. maa ngi ñëw maa ngi ñëw maa ngi foofu yent bi daa am lu mu baax. daf na bo dana fi daf na fen kat daañ di fen ba bu waxee du dëgg ñu ne day fen. xataa yaktuba indallahi kashab nee na fen kat xam nga li tax yàlla jël Musa yonte yàlla Musa jël Musa mutul kasaab tuddee Musa mutul kasaab. fi ne yàlla eggoon na ci moom bu dikkoon ne maanaam Mame Marie moom moo ngi ni toog fi ne boo xoolee doo gis Mame Marie keneen ngay gis xam nga mi la bu baax mm-hmm. loolu moom man ay waxam ma loolu laa ko laa ko jàpp léegi nag une journaliste mercenaire la boo xam ne mm-hmm. day prépa day préparé psychologiquement doomu adama yi ak sénégalais yi ngir ne maanaam suñu génnee liste Sonko ci liste électorale ñun du garaaw mu du garaaw ci ñun loolu nag ma ciy woow tous les patriotes gis nga yooyu ñuy wax noonu yooyu bu leen ko dégg bu leen ko jàpp parce que ñi li ñuy préparé lenn rek la muy nooyal leen ba ngeen nooy dégg nga ba bu ñu leen bëggee dagg comme ni fëriñu mburu daa daggate leen sànni leen ci diw gi lakk leen ngeen ñor mais mais mais mais Cheikh Yérim mën nañoo seetlu ni chaque fois bu waxee day day coïncider ndax bu mu nee Macky Sall bokk ci élection présidentielle gis nañu également loolu am na. man wax naa ko. Hmm? man wax naa loolu. man wax naa ne Macky Sall bokk ci élection présidentielle man wax naa ko loolu daal loolu yow mën naa xam. bi mu ne Sonko dañ koy tëj tamit teg nañu ko. bi ñu ne Sonko dañ koy tëj loolu moom Sonko moom dong Cheikh Yérim waxu ko woon moom. mbooloo ko waxoon dañ koy tëj di kay foo tourné da nga ko dégg. Mhm. Moustapha Diakhaté waxu ko wax na ko dañ ko war a tëj te danañ ko tëj wax na ko fii. tas tas parti bi tamit. wax wax na ko mooy loolu du problème loolu du problème xam nga. Mhm. bu leen ko jox crédibilité. daa am loo xam ne lu ñëpp xam la. lu ñëpp xam nag dañuy Sadio Xaadimu Rasuul da daan wax ne boo koy wax tuuti doy na ca. Mhm. yéene ñu am. te ko bëggee luñ bëgg def yéene yooyu la jël jox ko ne ko demal ca penc ma nga fexe koo jëf xam nga loolu mooy lan loolu fàkk fàkk la loolu moo tax fàkk fàkk la maanaam mi ngi mel ni dañoo defar seen oto ba mu baax bëgg koo jaarale ci kaw kaw ab tali Cheikh Yérim Seck mooy ki defar tali bi ngir bu ngir bu oto bi bu oto bi ñu ah, ngir mhm. ah, très bien bëgg mhm. ci Sonko mhm. sa kalaas Cheikh Yérim gi koy sant ngir ñu wax ko ngir buñ ko defee lu garaaw parce que nag gis nga def am lu ñuy wax jël ay jël ay kàddu jël loo xam ne lu garaawoon gis nga bu jëkkoon fii Sénégal gisoon nga fi loo xam ne garaawoon mais léegi garaawatul tey jii nit ñi dañuy toog ci ay télé ak rajo di génn ay ay sexe te boobu njëkk ku ko ñeme woon di génn yu yu mboolem yoo xam ne soxna yi dañ koy waaj ci télé da ngaa gis ku ko daan def ñi ko daan jaay sax dañ ko daan denc xam nga ci loolu mm. boutique yi ko daan jaay mm-hmm. ñoom dañ ko daan denc ñoom daawuñ ko exposé sax boo dikkee dañ ko exposé solal ko seen statut yooyu ñu taxaw mm-hmm. parce que loolu dañoo fexe ba mu banal ci nit ñi ñu door koo mën a exposé dégg mm-hmm. tey jii jàngoro bi ñu daan wax euh, xam ngeen ko sida xam ngeen ko nit ñi biñ ko nit biñ bëggee banal lu ñu def ci télé dañ ko yóbbu am na yu so nit ñi jëfandikoo ngir ngir def yenn yëpp yëpp dañoo fexe ba indi benn Youssou Ndour mu koy wecc tale bi mhm. ngir mu banaal ci ngir mu woyof toll nit ñi yooyu nag moom la ñuy nit ñi psychologiquement ngir Cheikh Yérim wax ñu ko ngir bu ñu ko defee du ko waaye nag damay laaj ndax mhm. Cheikh Yérim Seck moom moo war a indi benn benn moo war a indi benn kayit boo xam ne ci misaal mhm. judiciairement définitivement juge moo ko signé publié ko maanaam juge moo ko war a wax wala Cheikh Yérim moo ko war a léegi nag en tant que tel siis boo ko Cheikh Yérim Seck di la ko wax ci koo xam ne moom wax na du dëgg moom moom wax xaaxiratun hinda wax lu dëgg moom ci ci maam ci ay vocabulaire la bokk mm. ci ay mufradaatam la bokk Cheikh Yérim dafa gis nga Cheikh Yérim xam nga dafa dafa war a comprendre bu baax na gis nga ñun sax vraiment ñi nga bopp mm-hmm. parce que gis nga gën gën a gën a Conakry ñoom la bëggoon a njëkk a manipuler ci situation yi mu manipuler Sénégal ñoo dañoo bañ moom gis nga Camara benn extrait bu gàtt bu def ci Cheikh Yérim mm-hmm. c'est ça n'est-ce waaw parce que parce que li mu bëgg mooy na cim réew. Mhm. mel ni ko moom waa réew ma na cim réew mel ni koo xam ne yow yaa xam yow dong. Mhm. ku dul yow xamut. journaliste yii ñoo ko gën a cohérent. Mhm. ñoo ko gën a ëpp xam-xam ko gën a dàq dëgg. mais suñ bi <laughs> daal solo nga ko doo jàngatee euh, li nga xamante ni rek moo xew fële ca Paris muy euh, concert bi nga xamante ni Youssou Ndour amal na ko fa euh, ñu gis ni ba mu fa yéege ñëpp naan libéré Ousmane Sonko libéré Ousmane Sonko mu mel ni tëj giñ ko tëj dafa gën a yokk oraa waaw noonu nga ah, loolu moom ñoom xamuñu ko woon te gëmuñu ko woon ñun dañoo defoon na bu ñu jëlee jëmi Ousmane Sonko rek. Mhm. tëj ko ci prison bi. Mhm. nit ñi kenn ko ne delloo ci sa liggéey. fàtte ko di liggéey. Mhm. déjà fàtte nañ ko. loolu ma nekkoon seen objectif ci mbir yi. te ni ñu koy comprendre rek mooy keroog. maanaam depuis ñaari at ñett yi. li ñu daj ci emprisonnement Ousmane Sonko emprisonnement bu Ousmane Sonko jaru ko. xamul ndax jaru ko mooy. dañu koy toppee crime crime bi ñu koy toppee wëlbati ko topp gi ñu koy topp ci crime mujj gi mujj gi mu jur parce que bu ñu nee maanam viol crime la ñu ne maanaam viol lañ koy topp ñu dem ci biir viol boobu ñu koy topp ay nit ñu bari lu ma trente personnes dee ci te dee moom xanaa moo gën a nekk crime viol ñoom ñëpp mën nañu nekk crime mais crime li tolloo hmm. moo yi sës ci beneen crime benn crime ngay àtte far daal di ca jëlee fanweeri fanweeri crime hmm. jëru ko benn crime ngay àtte far am ci dëkk bu tàkk ba max ralay saay ba dëkk fi ne nii nañ ci maanaam daanaka jeexoon na hmm. jëru ko léegi nag loolu lépp xam nga duñ ci doon wut suñ ko emprisonné mbiram tàbbi géej parce que Omar Blondin Diop Diop jaaroon na fi mbiram tàbbi na fi suñ ko emprisonné mbiram tàbbi géej parce que euh, kii jaaroon na fi Mamadou Dia mm. dañ ko emprisonné mbiram tàbbi na géej kasiirun min rijaali si afan yu bare ci maam euh, homme politique yi mm. seen mbir noonu doxee tàbbi géej léegi nag heureusement nit ñooñee bokkuñoo nit ñi fi ne leader bii nii bokkul ak leader yooyee fi jaaroon mm. parce que leader yooyee fi jaaroon malgré li kii bëgg ñoom bëggoon nañ ko mm-hmm. kii ëpp leen waaye sens bi kii am mooy kii daa fekk nit ñu yëg xam-xamee xam la xew itam te mbir mi jaral leen ko hmm. moo tax bi ñu ko emprisonné defe ne maanaam fàtte nañ ko hmm. ñu fexee daal di def ba ci seen seen F24 bi gis naa sax a doon te hmm. ma ko soxla parce que li tax du ma ko soxla day jëm feneen jëm ci ñeneen te man hmm. bëgguma ko noonu ndax mbir yi résistance bi nu am ba maanaam kon dañuy dañuy dañuy mbubboo Ousmane Sonko bu ñu amee lu ñu bëgg jël beneen yoon waaw loolu mooy dëgg parce que ñu ko jëlan jiitu woon ci yoon woowu lañ jaaroon Sonko daa mel daal benn matériel la boo xam ne daal ku am problème ci moom ngay ñëw bu say problème réglé woo mhm. noonu laa ko gisee mhm. man man ko de gaw ma ko dama leen ne mosoon a wax ne ba ngeen dañ leen di dañ leen di dañ leen mhm. leen di dañ leen di yar mooy comme ni ñuy def maanaam ab kalbu rek maanaam yar ko ba nga xam ne foo ko jëmale mu jëm fa. moom miin la dañ miin la maanaam dañ leen di yar xam nga lu ñu leen di yaree. Mhm. dañ leen di yar ci maanaam bu ngeen toogee ba lënd ci ngoon ngeen ngeen eh, mercredi dañu bëgg a def benn manifestation. Mhm. Euh, kii bi euh, préfet bi daal bind na interdit naa ko kenn ku ne dellu ci liggéeyam du ngeen ko critiquer du ngeen ko dinga du ngeen jawee plateau du ngeen nekk di bañ du ngeen def dara ci yooyu dañ leen bëgg a éduquer wala topp ci ñu lay idéologiquement ñu lay ñu lay yar da nga ci sa ci sa yoon yoonu yoonu leader parce que nag gis nga su Macky Sall wax naa ko seen manifestation ñu hmm? organi ay stratégie kese la stratégie la rek pour jéem a dànk patriote yi donc la parce que nañ ko dugal hmm. dugal seen benn parce que F24 bëri na ay leaders yaa Bougane Gueye Dany ci biir ah. moom Sénégal moom sañ bi xamal hmm. Sénégal moom soxna si xamal naa la yaar leader bu bu boo xam ne leader la bu bu bu bu toog fi mu toog te jàkkaarloo kenn te bañu ci bët buñ ñu saanam ngar Ousmane Sonko d'accord ñu jàll ci leneen muy interdiction préfet yi gis nañu tamit comme ni nga ko waxee léegi rek F24 saa su organiser li nga xamante ne mooy manifestation mu interdire ko euh, ñi nga xamante ne ku ci mel ne Malick Gakou euh, ak ki nga xamante ni rek mooy Bougane Gueye Dany ñu ngi leen interdire seen euh, li nga xamante ni mooy tournée yi ñuy def li ko waral préfet bi dafa interdire lépp loo xamante ni rek rassemblement la ban jàngat nga mën am ci loolu. jàngat ma jàngat mooy préfet bi. Hmm. lii nga ci def la ci bëgg. débat bi ni mu ko ci bëggee mooy xam na ne mm-hmm. débat bi moom benn la mm-hmm. muy débat bi Ousmane Sonko am te débat bi nekk ci ak bës bi moom la ko moom la ko moom la moom la ko yéene wut mm-hmm. wutal yeneen opposant parce que opposant yooyu moom ñoom tabax nañ leen bañ mel nañ bëgg ñu mel ko daal defar nañ leen ba ñuy doxal ñun nañ bëgg ñu doxee ko su ko ñu ne léegi affaire insiste dafa am ci nangam ak a tourner mbir yi jëmee ko neneen muy sama classe gi nga xam ne maanaam ay ñu gëm sonk la ñu gëm xam maanaam ay ay ñu gëm Sonko lañ daal ñu gëm ay programme am lañ ñu tourné leen ci maanaam bëgg leen kii gëm leen kii parce que li ngeen di xeexal Sonko mooy injustice ñii ñu ngi leen koy teg te ñooñu kenn tegu leen injustice loolu du injustice de. du injustice du benn hmm. mooy ñoom dañoo bëgg leen actualiser ci actualiser bi donc nit ñi di waxtaanee comme nii. bu ko defee débat bi Ousmane xaw a xaw cee xaw cee kii tuuti daal mu am a suul kon ñu ngi ci stratégie du suul Ousmane Sonko ba tey suuf ci loolu dong lañ nekk. Hmm, hmm, loolu nag ma ciy éviter tous les patriotes. gars yooyu man gëwuma leen xam nga lu tax gawuma leen. Malick Gakou gawuma ko gawuma ko. Déthié Fall gawuma ko. lu tax ah, Déthié Fall wallaay gawuma leen. man boo bëggee dégg dëgg li may wax ne sax bu ko koo gisee amaana du ko neex. Mhm. waaye man sama sama sama man sama ngëm-ngëm laay wax ne gawuma leen de. a ñàkk leen parce que lu tax ma ñàkk leen a gëm mhm. mooy. Bougane dafa am benn jamono. Mhm. ñuy def li ñuy wax coalition Yewwi Askan Wi.